concept boo xamante ne nii euh, bu bees bu ma lancé la ñu koy woowee euh, carré VIP maanaam ndajem VIP yi ah ndajem VIP yi nag xëy na ci tur ci woote mën na nekk lu sélectif mais du loo xamante ni nii ku ku ñëw tey bëgg caa dugg duñu la ci dugal déedéet au contraire ñëpp ca am wàll ñëpp ca war a mën a mën a dugg mais dafa nekk rek loo xamante ni dama ko dama ko génne euh, parce que dama seetlu ni euh, Sénégal bi ma dellusee ak laata maa dellusi gis naa ni am na ay nit ñu baax ñu bëri ñoo xam ne dañuy bëgg a génn mais léeg-léeg duñu xam fu ñu jëm voilà duñu xam fu ñu jëm du xam fu ñuy génnee duñu xam lu ñuy def duñu c'est assez limité voilà loolu lépp nag moo tax vraiment ma créer Euh, concept bi nga xamante ne nii mooy carré VIP pour euh, partager ak suma public benn bi mais aussi permettre leen ñoom ci seen biir ñu partager euh, xamante ku xamul woon Masamba xam ko ma dem ba xam Masamba ñu joxante loxo joxante carte de visite parce que loolu dafa manqué léegi Sénégal te Sénégal toll nañ koo xam ne léegi soxla na nit ñi gën a bëggante nit ñi gën a jàppante nit ñi gën a demlante te mbir yi Eh, mi ngi toll fu tax léegi ku ne da nga ragal sax sa moroom voilà soo toogee kii sax da nga naan ah est-ce que wóor na donc loolu lépp nag moo waral ma ne naa lancé concept bi rawatina kilifa yi ndax boo dee xool jafe-jafe yi fi am yépp ñoom lay dal ay vidéo fii ay lii donc looloo tax nag ma ne naa lancé di non seulement pour retrouver sama public dajeek ñoom ñu mas ñu ñu ñu laami santé mais aussi permettre leen ñu xamante ci seen biir pour créer une ronde d'amitié Euh, ay ay xaritoo ay demlante ay dikkale maanaam lu mel ni daal tour familial bu ma ko dee mën naa koo woowe noonu quoi voilà. alors ku hmm. waa hmm. hmm. euh, dafa di rekk parce que ñooñu ñëpp aussi ci ci peuple bi la bokk ci public bi la bokk te boo dee xool dafa am ñu bari ñoo xam dañu bëgg génn mais dañuy ragal wala duñu xam fu ñu jëm wala du ñu xam luy programme bi wala du ñu xam euh, fu ñu war a échanger te man yàlla dafa def ma am chance woo am ci genre public googu tubaab naan public éclectique maanaam public VIP yi nga xam ne nii dañu bëgg di génn ay ambassadeurs yenn personnalité yi te souvent dañuy bëgg di gis samay samay événement samay programme moo tax nag ma ne euh, naa leen woo ci bërëb boo xam ne nii euh, dinañu am ay période soit benn yoon par weer wala ñaari yoon par weer ñu Euh, pour euh, vraiment échanger ah def musique mais échanger euh, waxtaan saafonte loolu moo waral carré VIP aussi. dëgg la sama xeex la woon te sama xeex la mës a nekk te ba léegi sama xeex la nekk ndax bu ngeen xoolee d'ailleurs gis sama plateforme yi di ngeen gis ni ba ma ñëwee ba tey maa ngi dugg fu nekk maa ngi def ay rencontre def ay échange di gis samay partenaire pour waxtaan ak ñoom ci mbirum àq yelleef doomu aadama àq yelleef ndaw ñi yooyu yëpp parce que loolu sama combat waaw ndax man dama mës a gëm ne aada ak cosaan mooy ak euh, tur mooy yoon wi nga xam ne ci nga war a aw aussi pour euh, changer change mind voilà changer mentalité yi daal di indi leneen voilà loolu moo war a dit boobu ba tey vraiment ci la ci fànn woowu laa nekk di ci liggéey fu ma toll di ci def fu ma toll te maa ngi soog ko ñëw ni ma ko waxee may leen ma ma dal tuuti rek <laughs> voilà may leen mu ma dal tuuti et bien que bon maa ngi jël samay marque ndax maa ngi fexe retrouver wu ah voilà maa ngi fexe retrouver wu et tout euh, macha allah dinaa gën a euh, wéyal di def liggéey bi nga xam ne nii maa ngi ko doon def ci fànn yooyu yépp pour jigéen ñi pour xale yi pour ndaw ñi pour pour Sénégal pour Afrique te am nañu programme yu ñëw yoo xam ni yàggatul dara dinañu leen ko. dinañu leen ko baaxee loolu bokk na li nga xamante ni nii moo ko tax a jóg. ak single bi mhm. ñëw public bi ñu ngi ciy liggéey xam naa dinañu leen convier parce que single bi moom incha allah dañu décider def ci liggéey bu am solo parce que mën naa ni mooy way wu wu dëggu. wi ñu ma njëkk dégg may way parce que bon c'est vrai way naa musée maa ngi ñëw way ci carré VIP mais single bi c'est autre chose parce que mën naa ni ça ça va sortir ci sama sama biir lay génn ci li ma dund la ah li ma li ma jaar la et tout ça donc euh, sama sama voix la en réel en studio après euh, fi ma jaar donc euh, incha allah euh, na ko public bi aussi xaar. ni ma ko jàngatee mooy bu ñu mukk di tàyyi di sensibiliser di waxtaan ndax àdduna tànk nit ñaa ngi fi di dund tànk population mi ngi am tànk yeneen ñu dund ñu bees ñi ngi dund. nit ñi ñu ngi màgg tant que migration mi ngi am nit ñi di déplacé wu di dem fii di dem fee euh, euh, naturellement changement de comportement day am ah changement euh, ci gis-gis yi aussi dafay am loolu lépp nag moo waral bu ñu mës a yi di waxtaan ah, di def plaidoyer bi ndax loolu mooy cëru acteur culturel loolu mooy cëru artiste voilà donc ba tax na man damay wéy rek Euh, di sensibiliser population yi di gën a waxtaan ak ñoom ñu gën a moytu ñu gën a def ndànk ndax dëgg la jamono metti na àdduna bi day gën a metti tous les jours réew mi metti na euh, mais tool yi ñu ngi fi dëgg la fay gi bokkul voilà ndax euh, te Europe xale yi ñu ngi dem ci tool ndax ña nga fa ñuy daggee cerise ya ak tomate ya fay ya bokkul parce que réew ya bokkuñu parce que lu yaas ya ngay fay bokkul ndund ga bokkul mais fii mën nañu ko mën nañu bay mën nañu y a pas de voilà xale yi bu ñu wutati soo métier daal ndax man damay gis xale yu bëri yoo xamante ne nii dañuy liggéey mais am ñoo xam ne bëgguñu liggéey ndax dañuy bañ métier man su ma duggee sama oto romb par exemple ci tëli bi romb tous ces jeunes yi jaay ndaamaraas yi su ma bëggul jënd sax damay jënd voilà wala ma romb ñuy jaay gerte caaf damay jënd ay jeunes yu bëri yore seen pañe yi pour pourtant duma lekk gerte caaf parce que waykat warul surtout waykat bu mel ni man opéré dañ ma tere gerte caaf donc du ma lekk gerte caaf du ma lekk ndamaraas mais damay jënd pour encourager xale yi dama leen di yërëm léeg-léeg ma romb ñu yore pañe yi di jaay ay orange yu bëri ak ay clémentine voilà damay jënd léeg-léeg sama may leen monnaie bi voilà après parce que boo waxee ma ne dama leen yërëm waaye jëndal encourager leen parce que boo jëndee nga encourager leen mooy tax xale yi seen journée bu ñu wàccee mu neex ñu motiver ñëwaat kon y a pas de sot métier nga am sa benn petit cinquante mille nga di ko gagné def sa dix mille bi nekk sa paas ah 10 000 bi nga dem euh, jënd sa ay chemise yàlla fëgg jaay bi am na ay chemise yu rafet man mi jënd naa fa ay yére ba tàyyi dem Colobane jënd ah et en France dafa am fëgg jaay ah faut pas complexe parce que y a de Sarcelles y a le marché de nga xamante ni nii da ngay gis chemise boo xam ne boutique yi ñu ngi koy jaayee quinze wala 20 euros nga dem ñu jaay la ko 2 euros donc mooy marché samedi yi fii boo ñëwee nga fëgg passé dafa nice de man mii yàgg naa faa jënd ba tàyyi léeg-léeg sama doom yi. dañuy dem jëndi foofu bu ñëwee ma ne yow li nga jënd rafet na ñu ne ma maman marché samedi ma ne ko doomu ko jox ñu ne maman jox ma <laughs> dafa rafet jaayaat ma ko <laughs> donc pour vous dire parce que da fay fekk ay affaire wu marque yu rafet kon xale yi nañu xam rek ne nit ki yaay construire euh, sa àdduna yaay euh, ñafe pour xam ne dina metti mais dina baax autorité yi aussi euh, jàppale leen gën leen a taxawu et puis que tout le monde soit plus vigilant jubluwaay yi rek mooy delloo si li nga xamante ne nii ñu ngi koy ñàkk Sénégal mooy solidarité mooy teranga ndax xam nga Sénégal réewu teranga la xame ko teranga voilà et aujourd'hui gis nañu li nga xamante ni nii jamono yi moo fi xew nit ñi dañu ragalante léegi seen biir ndax li ñu gis ci internet bi ndax xawi suture yi ci internet bi ndax saaga yu ci TikTok yi réseaux sociaux yi ba léegi ku nekk da nga dem ba da nga ragal da nga da nga tëju quoi te man dama bëgg ñi nga xam ne ñoo ci gën a tuju mooy kilifa yi yegg yenn niveau yi carré VIP nag di ko tax a jug mooy nit ñi ubbeeku nit ñi dellu bëggante nit ñi dellu amante cofeel seen biir nit ñi dellu gën a wóoluwante seen biir mais au delà de ça nit yi aussi créer benn chaîne d'amitié maanaam ak ab càqub xaritoo ah càqub mbokk lu mel ni tuuru famille nga xam ne bu fa jógee fa lañ daje mosuñoo gisante mais ñoo dend ci table cocktail bi ñoo doon waxtaan mais bon après joxante nañu ay carte waxtaan nañu après ñu fexe gisante te chaîne boobu fekkente di nii vraiment euh, réussir naa créer ko ci sama jëmm ji entre ay personnalités yu divers ay doomu aadama yu divers loolu dama ciy am bu baax fierte loolu moo waral carré VIP. waaw déedéet beddeeku ma nag sama sama sama càmmiñ bi El Malick je suis pas d'accord <laughs> voilà parce que bu leen fàtte ni sama li ma doon wax rek mooy euh, sama génn bu njëkk 13 mai dernier xam ngeen maa ngi ko defee musée civilisation noire voilà te foofu ci musée civilisation noire su ngeen ko euh, fàttali ko am na li ñuy wax euh, ñi ci biir maanaam force bi te entrée bi junni rek la woon voilà 5000 francs kon defe naa ni loolu c'est parce que dama xalaat comme ni ngeen koy woowee peuple bi voilà parce que man moom ku ma xam-xam ne duma ma du ma woykat wuy beddeeku voilà au contraire parce que vraiment euh, peuple sénégalais man mën naa ni euh, dama leen ameel njukkal voilà dama leen ameel njukkal ci seen cofeel ci seen mbaax ci seen affection euh, ci seen yërmande ci seen rus dañ ma rus dañ ma jox cër voilà te loolu dafa nekk loo xam ni tous les jours dafa may sas ba su may dox damay xool ni may doxee su may wax damay xool nu may waxee nu may toogee ba bëgguma def lenn loo xamante ni nii euh, sans même ma yëg ko dina leen blessé voilà surtout que man fi ma jugee nii euh, dafa xaw a sori daal mën naa ne fu sori laa jugee voilà ndax léeg-léeg dama koy faral sax di wax sama yaay naan ko man su ma génnee damay mel ni ku deewoon dekki de ah man defe naa damaa deewoon dekki mun ma lu tax ko parce que nit yi suñ ma gisee ñu may raay ah Kumba yaa nekk nii ah Kumba yaa ngi nii <laughs> parce que tellement xëy gëmuñu nii maa nekk nii pourtant maa nekk nii loolu lépp nag li ko waral mooy cofeel voilà cofeelu sénégalais seen cofeelu africain de manière générale cofeer yëpp ba loolu daf may sax jox kersa te defe naa ni loolu yar na ma dolli na sama yar d'habitude dama nekk nit ku am yar mais dama gën a yaru ba su may dox sax damay am luy nekk sama bopp naan ma xoolal ni ngay dëggee suuf si ah dëggal suuf si ak humilité comme ça ma defaraat sama doxin voilà ci ci suuf si parce que fi ma jugee la quoi voilà ak it ni ma ni ma ni ma nit ñi def daal mais eh, ñu ngi leen di réserver au-delà carré VIP eh, kii est ouvert à tout le monde parce que ñëpp lañ ko ubbil voilà ku nekk feneen foo mën a nekk mën nga ñëw ah c'est ouvert voilà maintenant est-ce qu'il est que nag ab événement dafa am ay règle règle yi mooy da jënd ticket nga ñëw fay njëg gi nag mën naa wuute sinon voilà mais am na yeneen événement yu bëri yooyu ñëw yoo xam ne incha allah yéen ñëpp dinañ leen ci convier euh, c'est pour euh, voilà au à l'intérieur du Sénégal et un peu partout incha allah